waaleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu El Hadj Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye Nabien di sët ci Cheikh Yirim Numban Seck di taalibe cheikh na Cheikh Saadou Abi ibnu Cheikh Mouhamed Vaadul Maamin juddoo ndar dëkk ndar yaroo ndar alhamdulillah dem ci daaray Nimjaat ci kër Cheikh Cheikh Sadbu jànge fa sunu borom dogal sunuy jur ñëw ci dakaar euh, yow fan yi ñu ngi dégg ne euh, am na waay bu nekk Kori Kolda. bu tuddee boppam ni moom mooy yonent bu bees bi ba muy jullee sax euh, ci lakkam maanaam muy pël ban xalaat nga am ci loolu yow waaw loolu xanaa di wax aoudu billahi min alcheytan rajim bismillahi rahmani la hawla wala quwata illa billahi alil azim benn mooy dëhru dahaariri kitaabuhu jadid la yuxtasha tahrif wala xid jamono ba jamono jeex téere yàlla bi ñuy wax alxuraan day bees amul ancien testament amul nouveau testament ëllëg yowmal qiyaama alxuraan buñ ko dekkalee ci kanamu yàlla kenn du ci yokk point kenn du ci wàññi virgule ñu jàngoon ci addis ni la nabi baada muhammad benn yonant dootul ñëw gannaaw seydina muhammad sallallahu alayhi wa waaye jamono bu nekk da ngay gis ni li ñu waxoon wala tatabi xutuwat cheytaan innahu lakum aduwun mubin innama yamurukum bi su'i wal faxsha'i wa an taqul ala llahi ma la taalamun Euh, bu leen topp ndigalal seytaane ndax seytaane dana dana leen ñeel jëm ci noon bu biir te du leen jugal ci lu dul yàq ak wax ak di wax ci yàlla lu ngeen xamul loolu li ci gën a ñaaw mooy xëy na gàcce la ci Sénégal comme ñu ngi tudd loolu di tudd Kolda gàccey Sénégal la waaye gàccey umma islamique yëpp la ñu toog ba tey koo xam ni dafa génne alquraanu boppam ci wàllu làkkam ba pare génne façon julli boppam génne façon noddu boppam ñun de dañuy wax aoudu billahi min asheytaani rajim yàlla nañu yàlla musal ci seytaane ak pexe seytaane waaye li leer te leer mooy laa nabi baada muhammad yonant dootul wàcc gannaaw saydina muhammad alayhi salaatu wassalaam isa moo mujj ci yonant yi te daf noo xam ne id qaala isa ibnu mariam ya bani israil inni rasulillahi ilaykum musaadiqan lima bayna yaday min at-tawrat waaye wa mubashiran bi rasuliyaati min baadi ismu ahmad kooku bi mu ñëwee ci kaw la tudd Ahmad ñu tël ko wàcce ko ci suuf mu tudd Mouhamad Abdoulaye jur ko Amina jur ko fu nekk nag ña ngi ko fa bëgg feeñal mais yonent bi ku dem Madinatul Munawwar di nga ko fekk mi ngi ci biir réew doom kon borom barrière or bi daal Madina la nekk te fa la tëdd te wax dëgg yàlla kenn ku nekk xam nga ni Seydina Mouhamad Abdoulaye mooy baayam Aminatu mooy yaayam te moom la yàlla yónni wàcce ko ci nit ñi wax ko innama bu'istu li utamima makarimal axlaq dama la tànn di la yónni ci mit ñi ngir nga mottali ji tedd ngay jikko yi kon da ngay gis ni ba léegi euh, xëy na liberté dafa am ndax xëy na amaan na ñi doon def lii bu comité musulman yëpp jógoon dal seen kaw wan leen ni lii waxu yàlla la lii mooy sunu trésor lii mooy sunu richesse lii la ñu am sunu yonent kenn du ko fowe mais kon tey jii ñi doon caricature Seydina Mouhammad alayhi salaatu wassalaam euh, mën nañu am dëgg ci sunu kaw bu nu seetaanee yii muy dem justement loolu moo naroon nag suñu deuxième question bi lan moo war a nekk taxawaayu l'islam ci bu lu mel nii amee dèjà ñoom dugg nañ ci kéefeer yonent dootul waat ci gannaaw yonent bi alxuraan benn alxuraan la kon ñoom tey jii lislaam da na a rey l'islam lis ndax génn nañ ci toolu l'islam de ce fait que ñu génne benn alquran génne seen kaaba bu ñuy tawaaf te ñëpp xam nañ ni bayti maamuur fala la yont yàlla ibrahima siggee woon xool mu gis kaaba gi ci bayti maamuur maam ibrahima defar plan wu kaaba gi tabax ko ñu ni kaaba gi néegu yàlla la gannaaw li ilaafi qurayshin ilaafihim raxata shitaa'i wa sayfi falyabudu rabba haadha al bayt muy néeg bi nga xamante ni tey mooy néegu sunu borom bi nga xam ni moom la ñuy tawaaf mu correspondre ak bayti maamuur kon beneen kaaba mënul am ci kaw suuf lu dul kaaba yàlla googu muy benn beneen tawaaf mënul am beneen aj mënul am lu dul ci kaaba sunu borom bi subhaanahu wa taala ba tax na ñi ngi defaat appel ci mbooleem comité islamique yi nga xamante ni ñoo ngi ci réew mi wooyu wàllu su nekkonte ni dafa jaadu kon julit yëpp ñoo ngi yooxu wooy wàllu nan nu wàllu ndax lii ci ñag bi la jëm te yu mel ni yàgg na fi am ñu ciy teg seen loxo diw feeñ na fii diw feeñ na fii kenn feeñul fenn yàlla fi nekk te mooy yàlla alxuraan mooy kàddug sunu borom leneen mënut dugg sunu bopp yi lu dul alxuraan cent vingt quatre mille prophètes la yàlla ni yonent bi mooy xaatimi nabi ina wa imaamil mursalin ubbi li mu yonant yi tëj li mu yonant yi keneen ku fi wàccaat ni nitu yàlla nga mën nañ la nangul keneen ku fi wàccaat ni borom xam-xam nga mën lan la nangul waaye yonantu moo dootul am gannaaw yonantu bi kooku na xooli lu mu doon waaye du yonant